waaw nous pour euh, lancer le projet Yoko Komkom. Le projet Yoko Komkom Kom est projet qui a le président de la république Macky Sall daf pour nous donner toujours pour renforcer le programme national de bourse de sécurité familiale le programme national de bourse de sécurité familiale bi dafa tënku ci juróomi junni ñun ñay jox yoo xamante dafa am luñ la ci sas muy sa bu juddoo nga enregistré ko sa bu tolloo ci jàng nga yóbbu école sa bu feebaree tamit mu faju ji ànd ak ce nga accompagner ko loolu mu gunge le ak juromi junni yoy loolu tamit mu wuti lenen lo wax capital humain bi tàggat leen ba ñoom ñëpp ñu xam ne ay vrai citoyen lañ ndaxte nit ki bu fekkente ne bëgg nga bokk ci société mais duñ la beddi beddi googu mu koy xeex xëcc leen ne bëggatuma kenn beddi kenn jël loolu jox leen ko taxawaay boobu nag ñu di leen tàggat tàggat leen ci fànn yëpp ba nga xamante ne fu jigéen taxaw dañ fay mën a taxaw fu liggéey mën a nekk war nañ koo mën a def ndax ni ñu demoon xamuñu dara ci àdduna walla ñàkk xam yeewu dañ leen a yee ba ñu mën a taxaw fépp foo xamante ne jigéen war na fa taxaw pour mën a téye mën a jàpp mën a bokk ci liggéey pour koom-koomu réewam loolu moo tax léegi nag ñu ne projet bii dañuy ñëw projet pilote la maanaam dañ koy tester pour ñëw teg ko teg bi mooy lan dañ ci tànn ay nit yoo xamante ne tey ci ñeenti région la ñu jël région de Dakar région de Kaolack région de Saint-Louis ak région de Thiès ñu jël ci lu mat quatorze mille sept cent yoo xamante ne ñoom la ñu jël tàggat leen ci ñeenti pake yoo xamante ne dañ leen di former tàggat leen defal leen ay ASEC mooy comme genre avec yi nit ñi di wax léegi ñun ASEC lañ ko wax ndax dañ ciy épargner ñu jàngal leen tàggat leen naka la ñuy yoree euh, entreprise bu ndaw ku yore sa njaay noo koy gérer tàggat leen ba ñu gëm seen bopp pour mën a nekk taxaw pour mën a demal seen bopp mu nekk ñeenti paquet ñu war leen gunge fan weeri junni yu ñu leen di jox kenn ku nekk pour nga mën dem développer activité yooyu puisque programme bu ne am na njeexital te président dafa bëgg bu demee ba nga xamante ne ma ngay jeex ngay génn lii ñu lay jox nga di ci développer sa activité day lay jural sax lu ëpp juróomi junni yi nga doon jot ci ñetti weer yi puisque loolu mooy indi développement ci loolu lay wut loolu mooy indi autonomie loolu mooy yokk koom réew te bëggul kenn bàyyeeku ci ñëpp la bëgg ñu bokk ci buñ ko xaymaa nag euh, ci li ñu génne ci benn milliard lay toll un milliard huit cent millions ñu tas ko ci ñooñu nga xamante ne ci douze mille la ñuy tonn ndax quatorze mille sept cent la ñu jël mais comme ay ñeenti paquet la am na boo xam ne comme dañuy après comparé méngale xool fan la leen yóbbu daf ci am ñaar yoo xamante ne kenn du leen jox xaalis mais tàggat lañ leen organiser leen ñenn ñi kenn tàggalat bu ko defee loolu moo indi 12000 yi ñoom ñooy jot buñ ko xaymaa nag fii ci Thiès am nañu 2638 yoo xamante ne dinañ jot xaalis bi buñ ko xaymaa mu nekk euh, ci 385 millions 700 mille francs CFA yoo xam ne moom lañ leen di jox tey ku nekk fanweeri junni.